Soxna Baye nag moo ngi jeexee ci quatre-vingt-quinze ci gàddaay ak yonent bi atum junni ak euh, ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom at boobu xam nga moom quatre-vingt-quinze mooy silatu moom mooy quatre-vingt-quinze Baye bi mu génnee àdduna ci Amadou bi baar bil bas bi laa bil xëy di laa wax xam nga daal rek soo jëlee xarab bi daal rek. lu ngi lu ñaata la ci ci firi juróom juróom waaye su nekkee dañ kaa taawee daat daatun wa alifun wa daalun mm-hmm. mooy bast bi mm-hmm. daat mm-hmm. mooy quatre-vingt-quinze parce que xarfu daat bi quatre vingt alif bi ak daal bi quatre xam nga loolu cinq kon quatre-vingt-quinze de bàyyi bi mu génnee ak dañuy na ñu taarixal wóoree ñu maanaam génn fàttali génnut bàyyi mu ne man marché woon naa bàyyi bu yàgg ñu ne ko déet yokkal ñu rek Cheikhaani daal di wax saaral xaliilu ama daadin falta i inda intisaafi rajabin wal umra i wal umra i wooy bu am solo mu ne saara dem na alxaliilu soppeem ama daadin atuk daad falta i na nga wattu ak moom ak moom at bu jar wattu la mooy atu silatu silatu amadadin faltai mu ne in dantisaabi rajab bi bii rajab amee fukki fan ak juróom te leen fàtte bi rajab amee fukki fan ak juróom la bàyyi judd bi rajab amee fukki fan ak juróom ci la bàyyi dellu xoolal même weer même bés yaa ngi dégg yàlla rek moo mën a may doomu aadama waaye amul ku bëgg tollale ku bëgg tollale ba nga am lii fekk sa bëgg tolloo rek moo la ko may mm-hmm. bëgg lu yemoo rek mm-hmm. ba nga jublu ci benn weer encore xam nga bàyyi mënoon na judd ci weeru rajab fukki fan ak juróom dal di dee mm-hmm. ci ñaar fukki ñaar fukki ci weeru rajab wala fan fan fukki ñaar fukki mais judd ci fukki fan ak juróom ci weeru rajab daal di génn àdduna ci fukki fan ak weeru rajab fukki fan ak juróom ci weeru rajab moo tax mu la falta i saaral saaral xalil falte i yi dem na ci atum daar mais quatre-vingt-quinze falte i mu ne wattul loolu bàyyi xel ci bàyyi xel ci Cheikhaane wax te képp ku wopp nag ci góor yàlla yi wopp yi wopp li may wax nag mooy ah. yaa ngi dégg mooy jeex ci yàlla képp ku wopp rek moo la gën a wopp mm-hmm. lu mu wax xam-xam la lu mu wax téere la falta yi da ngay jël woyam di ko jàngat di ci gis loo xam ne amul ku musa woy bàyyi gis dëxañ ci ay xikma ay adab arab yi yu mel ni li cheikhaan yi ba sax nee na ñoo ngi dette ñu ne bàyyi newoon na ko anta ashharu min ni lakin na mamduhi akbar min mamduhik yaa ma gën a mën a woy waaye ki may woy moo gën ki ngay woy ndax yow man ngay woy man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam falte i na saaral xalil amadadin falte i mu ne indanti saa bi raja bi wal umra i wal umra dundub bàyyi ih nan ko wattu ba ih kam ko ba to ih wa, wa'a moy wattu na ya'i mo ngi wattu mi la amdi bo so ko jël ih rek ngay wax ci arab ci arab amna amna fi lu amdi bo xamne haraf ben haraf kessa ni ko don taxante sax bi ñu jang sarf parce que ra'a moy ra'a ak ara comme yara yoy so bëggé wax gisal am nga ra'a moy gis so bëggé wax gisal moy ra' so da ngay so ci lokkee da ra gisal ngay mel ni oto bi bi fi bi frais ra waaw تامين موي سو بغي ووتو لو عاي موي دي غير نيو دي شي يوكو دا سو خاتي رك نيكاتو ام سو ني دي غن في الامر المبني على حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه دا هو الامر مبني على ما يلزم به مضارعه ايام يفهم لا جزم المضارع من غير اندي في الامر كون دي سو وقت هو وقع يقي وقع مسلم فوقع الله يا مسلم سو بغي واخ مسلم لنا قي قي رك نيو ku anfusakum mais xi su nekkee ne booru la ne ku waaye su nekkee ne kenn da nga wax xi nafsak xi ahla moo tax mu ne i i bi def ci boole xaaru sakti wal umra dund bi wal umra dund bàyyi i i ñaata la aynu ak bi i nan ko mokkal nan ko wattu waaye wal umra dund bi tamit wal umra i mooy i est-ce que dégg bàyyi nag léppam léppam nekk wéetal yàlla xam ngeen at bi mu dund man maa mooy atu laa ushrika di ko waxtaan mu dee wala boog mu judd mooy am at inna dañoo xemem pour dem ci mm-hmm. léppam léegi soo xoolee sax Euh, bàyyi ci at bi nga xam ne la judd ci milaadiya mooy ci atub yi ñent yàlla ñuy sàkk atub chrétien milaadiya du mille mm-hmm. xam nga mille neuf cent ak mooy dix neuf dix neuf moom mooy mm-hmm. te pour affaire day wax hendan kisah rajabin wal umrati mm-hmm. wal umrati so ko jangir umrat maful muqaddamun nyadi so ko ngene wal umru dundu ji ih umru di mubtada ih di khabar moy sa sam ter mm-hmm. wal umru no ko jangir ma mas mm-hmm. euh te nga gis bay ban at la ban at la jibbi xam nga at mo jibbi 1318 ci gàddaay yent yàlla ma masal atum jundi ak ñetti téeméer fukk soo jëlee xam nga mille trois cent xam nga mille trois cent treize bi mille trois cent treize ndax un ak trois mille trois cent un ak trois treize treize mooy hmm? du mooy bàyyi wala mooy àq <laughs> mooy bàyyi wala mooy àq yaa ngi dégg mille dix huit nag dix huit mooy xayun mooy firi secret bàyyi bi day dund ba ilal abad oh. moo tax ma ne sànq hmm? fardiyan ilal abad <laughs> hmm. aw xalifatullahi fil xaayni aw daahu سر العبودة الفردية من الأبد لكن يوم تي الله مساء الله وحنا حديث ندنا دوغ اجانا اي جوني جوني نيت غير لان غير سيله سيله بن واجي تدو سيله ني نه سيله تبن اشيمي كوم كا امنا كاتان بن سيله تبن اشيمي ني نه ياي ديغ دي يوم تي الله مساء الله ا وخات في حديث اني لا اشم رائحه الرحمن من جوانب اليمن ماغي خنج خاتو يالا تشوكو يمن غاي ني اويسو قرانيه kon yonent bi su waxee laa taqumu saatu xatta yazhara aalimu madinati ñun am nañ droit ñun tamit ñu ne aalimu madinati boobu mooy Mawlana Cheikh bàyyi nee ne si ci man yataallaq bil amini mahabbatan yenal kulla ma yaxwa bi shammi ali képp ku aju ci yonent bi da nga am li ngay wër ci yàlla waaye bi shammi ali ji gis ngeen da ngeen di teqale diggante diggante xarakatu raw yi ak yaa boo xam ne du xarakatu raw yi xëcc xam nga sooy woy da ngay xëcc mm-hmm. xëcc boobu ngay xëcc su nekkee ne da ngay xëcc pour woy mm-hmm. loolu bu la maawul arut di wax xarakatu raw yi mm-hmm. yaa ngi dégg sooy woy loolu woy woy yi ngay woy bi yëpp yaa ngi dégg yoo xam ne eh, kasara di mujjee da ngay soo soo ko woyee rek da koy xëcc yaa ngi dégg comme su même su nekkul eh, kasara sax كم لي وخف مراد الاله منك صلاه وزكاه وحجة وصيام حمل وصيام خج ولي بواب بني جوكم دول حركه الروي لو دا غاي وي موتا خجكو واي سو نيكو دون وي وصيام رك داي لغي نك باي دا فا ام دا فا ام وي يم وي ني بوري دا نيو ياكار يا جي نيو تي بيتي بي حركه الروي لا فيك حركه الروي يا متكلم لا هناك الفرق بين يا المتكلم وحركه الروي ني ني دان ارو لا يوهكو bàyyi def ne képp koo xam ne dangaa aju ci yonent yàlla muhammad dangaa topp yonent bi da nga am li nga bëgg ci yàlla waaye bi sammi arij yi bi sammi xeeñtu arij yi sama xet man arij yi yaay boobu du xarakatu rawi de mhm. su nekkoon xarakatu rawi mooy bi sammi ci xeeñtu arijin xet mooy mhm. arijin mooy cosaan arijin mhm. waaye bi sammi arij yi al mutakallim da nga am li nga bëgg ci yonent bi waaye ci kaw xeeñtu sama xet il faut nga xeeñtu sama xet nga doog am li nga bëgg ci yonent beneen bi moy man zaataa yaslu sayral abadi yejnil maari bi fay di madad di yaay boobu yàlla takalim la so demé ci téré bi gis bay néne ku mos meññetu xam yàlla yasiru de nga dox sayral abadi doxinu abad yejnil maarif yaa ngi dagg meññetu xam yàlla ci lan bi fay di madad yi ci sama fay du ndolal man madad yi soo xëccee madad yi ليس حركة الرجل نعم. وإنما الياء ياء المتكلم نعم. الشيخ يريد أن يقول لك أن المدد لا يكون إلا منه من الآن إلى الأبد كيف يسبنتم نعم. ياء دولا البوغ يسرق بفايد مددين تمالي دو حركة الرجل وإنما ياء المتكلم كون dina wara jang pour xam valeur ba ci bayyi am na lu nit torop torop torop nak moy surtout ma ci nga xam dañuy wor dañu am xam xam ci ndeysa dañuy jël bayti yaax ko yaax go xamne am na borom xam-xam bu bokk fële mhm. du taalibi Baay Ñas mhm. kenn kenn ko xam woy mhm. ne téye woyu bàyyi ak ni ñu rafetee ak ni yenoo maanaa ay or lañ da koy caxat-caxatee di ko yàq sëñ bi yàq woo xam ne ka léegi lay déglu mu yaakaar ne mbir mi nii la dégg nii la jógee koo ci bàyyi te yàlla xam na ne gàddu nga àtte bu rëy ndax mbir mi ci yow la jógee ni ko waxee loolu ci yow la jóge firi bi nga ko firi firi bi bàyyi bokkul firi boobu nam mu ci firi boobu yow sa firi la yaa ko الله يعلم ان الشيخ لم يرد تفسير ذلك مثال برهان جيب نفران باي يوم يقرب له لوين مال فيري لا باسكو خا نني غا نيو بور سوبي مين دير دو لاك اي شينوا ني ني ني ني ني واخ لاي لاك دي غي لاك دي لير كيب كو خوس تي ديو جوب ادب خام نحو يعني دي خام خام خام ني جان تي والو ظاهر سو تي مي تي بي تي باي كومبرا مي يي بو فوف نان دي جيب بي تي ديكو فيغي دي لا نيفي li la ngir woon ñi ñu ne man may waaj sànq na yàq sa temps mhm. si dégg nga wax bi de ndax borom xel yi dañuy xam ne loolu dara mhm. borom xam-xam bi dañuy xam ne loolu dara mhm. bàyyi mere la teg as oh. pencum yàlla suñ taxawee ngay làq ndax kenn ku nekk dafa war a ragal yàlla si ngay tuddaay boobu métti na ma waaye beneen bi ma métti te xaw ma métti ma noonu noonu mooy bayti bàyyi def ci bàyyi macha allah macha allah dafa xam xawaayu arabiya bu baax la lépp lu mooy rek la waa ji waxoon la ronkoñu gaynde la kenn du ko effacer. ronkoñu gaynde kenn du ñëw di ko foofu bàyyi lu mu bind ronkoñu gaynde macha allah nga gis woy woy comme fama qatalu fi sharqi wal gharbi fatfadan bàyyi na ila makkatin moo tey wax ko bàyyi tey wax ko xam na lu tax mu wax ndax ila makkatin makkata laa yansarif xam nañ ne kenn waru koo jar waaye ci woy la. wa jaizun fi sanati shiri sayid an yasrifa sairu ma la an yasrifa shairu ma la yansani dagan na ci wëykat ba ngay sarf loo xam ne kenn du ko sarf bàyyi moo tay la ilaa makkatin tanwin bi su ñëwul baytu bi du baax soo xamee wasnu بحر طويل له فأولوا المفاعيل فأولوا المفاعيل فأولوا المفاعيل فأولوا المفاعيل فما قطعوا في الشرق والغرب فاتحدت إلى مكة إلا لشم شتان mais soo ne ilaa makkata mbiru xool ne makkata kenn waru koo jar kon dañoo ilaa makkata yàq nga wasnu bi yaa ngi jublu rafetal te yàq nga yëgoo te dara yóbbeewul loolu lu dul ne da nga yaakaar ne yaa xam te xamoo bàyyi leen xel ci woy bi yi koy woy te ñenn ñi di askanu ci xam-xam ngeen di dégg ñuy ilaa makkata mhm. ci biir woy bi woy damu nga yàq wasnu bi ku nekk yaakaar nii la ko bàyyi woy ko noonu mhm, jéggal la ñoom moo tax métti wu bu baax ndax da nga da nga yaakaar da nga rafet mhm. yàq si ku naan na mu yor na sunna gis nga dégg euh, man yata allah bil amini mahabbatan su bàyyi nee ku aju ci yonent bi mahabbatan ngir bëgg yenal ku la maa yaxwa bi shammi ali di mu ne da nga am lépp li nga bëgg waaye ci kaw nga ñëw xeeñtu sama xel na man maay buntu yonent yàlla léegi wooy sub xaral yi yonent bi lan la waxtu wooy sub xaral yi def ne inni la yonent bi dafa toog benn bés inni la ashum raihata rahmani min jawanibi yaman man de maa ngi xeeñtu xetu yàlla ci côté yaman est-ce que yaman xam ngeen mooy firi yaman ci yu yamin lañ ko jële ci imma yumnan wa imma yaminan barke yumnu mooy barke te yumnu sax ci yamin lañ ko jële wala ndey joor mm. ñaar yëpp daa am fayda mm. ñaar yëpp daa am fayda mooy barke mm. barke ak ndey joor mm-hmm. maa ngi xeeñtu xeetu yàlla moom mosul nekk lu dul ci ndey joor yàlla du nekk ci càmmoñ est ca yàlla amul càmmoñ sax <laughs> yonent bi saa sallam nee ne wa an yamini rahman wa kiltaa yadayhi yaminaan nekk na ci ndey jooru yàlla góor yoo xam ne bis pencum yàlla te mu ne yàlla sax amul lu dul ndey ñaar yëpp ndey يلا بموي وو يوم يلا موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن تبي جور قال أكو يلا أنا مشامن كن يلا يوم تبي سوي خنت خنت يلا ما نكو خنت لو تبي تبي جور تبي جور أنا بقول خنت يمن بمن بقول في رجع جور إني لا أشوف مرا يا ترحمان من جواني في اليمن يوم تبي مومي خنت خنت يلا في اليمن لا يدفنه يوم تبي مومي kenn moom koo yegg njëriñu illa bi shammi anit yi lu nga xencu sama xel oh, léegi nag est ce que yaman la du yaman moo ko te ndeyjoor ga rek ndax te ndeyjoor bu yàlla nga gaa yaa nga ko mm-hmm. mm-hmm. loolu yeneen ci waxoon an yamini rahman soo demee ci ndeyjoor bu yàlla bu mm-hmm. kilta yadayhi te ñaar yëpp ndeyjoor la <laughs> est que góor ñoo xam ne li leen dajale du askan du commerce du politique yàllaa leen dajale loolu mooy ñooñu fayda dëgg dëgg dëgg ndax ñu weex ñaa ñu weexa di ñu xeer ñu xeereer ñu ñuul ñu ñuula di ñu lu ne moom ci pay Cheikh Ibrahim Niass soo demee Medina Baye daal làkk booba làkk dana am loolu amul fenn ci àdduna amul Medina Baye wallaahi amul làkk boo koy làkk boo koy indi ci cinq continents yi Nigéria xam nga dema laajte ñaata xeet ñoo fa nekk benn waay ne ma nañ ko ba mu nekk ñetti junniy xeet xabiila ci biir Nigéria ñetti junni waaye ëpp na ko si wax mm-hmm. gis na man dama am ay mbokk taalibe yoo xam ne su ma nekkee Nigéria ñoom laay nekkal toujours ñoo may dawalal ñoo may ataaya ñoo may defal lépp mm-hmm. ñoom laay yónni mm-hmm. lu ma dix ans am na koo xam ne saa bu ma ñëwee Nigéria moo may dawalal otom lay yónni di ma dawalal fu ma bëgg a dem su may def conférence moo may jottali maa ngi dégg man pour man maa ngi jàpp ne xaw sa sama yoon mujj bi ñoo ngi waxtaan ma ne ko yow de yaakaar naa xawsa nga de. Mm. te man maa tey ko noonu xam naa xawsa ma ne xawsa la rek. ne ma déedéet ma xawsa ma ne ko ban xeet la mu ne Dakar Mbaye. <laughs> wallaahi na si. ma ne ko bi may ñëw Nigéria ba léegi baatu Dakar Mbaye maa ngi koy doog a dégg <laughs> te musuma xam yow. <laughs> te gis na kooku ñëw na ci Medina Baye ziyaare soo bokkoon ci xeetu kakanda ñëw Medina Baye laata kakanda rek am na loolu. waaw noonu la Medina Baye ku yàlla sàkk rek moo ngi Medina لما تكون تجمعات من المويل او زرته لوجدت الناس في رجل ودهر في ساعة ورابة لو زرته سوزياني والداي لوجدت الناس انا فكي يب في رجل جميع دير نيو تبين نبو ورقل زمنا دهر في ساعة سيما فك أدنب يب يالا تخيب دخيب تبين الوقت بك ما وقت ولا يجيت مو والأرض في داري ريو يب سيما كنتنا يالا تنكو تبين فرد ومن يتعلق بأبيه محبة لا يزني لأن الكل ما يخاف من اسم يعني. لا كون شيخان موني من وخل كي باي كوني نقولي شيخان لك موي غوري على جين خمن ما شاء الله ولي ولا يدوم ولي يدوم ولي يدوم ولي ما شاء الله عالي دوم عالي دوم عالي شاعر دوم شاعر دوم شاعر غير يب تبي دينك أجنك سويني بينك فيك تجاه لجمع أجنك يب mooy seexaan def doon bësal Baye Niass tànk te Baye nit ku ñuul la moom ngi juddoo fële tey bu Niass ngeen ngeen yëkkati loolu rek moo jaaxal muy rootal Baye ginnaaw bi nga xamee daan na ñëw boobu xamagul kuy Baye di jël at yi Baye di ko ñëw Baye noo ñëwee ci moom ndax moo yonent yàlla Ibrahima dégg dégg dégg Mawlana seexaan yi ba mu demee ba tuube kuy Baye hmm. dafa mel ni nekk kuy Baye rek mu ne gis nga yow doomu aadama gi yàlla sàkk oh. te nga nekk jaam ngay dund 5 piliers de l'islam bi mooy mooy julli woor zakat ak i mel noonu cheikha nee na fa muraadul ilahi fa muraadul ilahi minka salatun wa zakatun wa hajjatun wa siyam wa yaqimun bihi wa ikhlaasu wajhin bi shuhudin anhu al anam niyam baabu zaaka almuraade minka jamian markazu sirri ramzuhu barhaamu baabu kulli ulumi jaamiun يجامع ما من كل سر يضيق عنه الكلام باب كل العلوم جامع ما من كل سر يضيق عنه الكلام آه. سمن بايخ ليغ داو بوغ سما يوخ بايخ واخ ماسكاي بن فين دير تامت جابلانتي ني جيف dañuy parax paraxee. ndeysaan masque ko. du dara waaye pour am na ay borom xam-xam yoo xam ne duñ ay taalibe Baay. ndeysaan damaa damaa bëgg ñu xam li Baay di wax ñi àndoon ak Baay di wax niveau bi mu toll. loolu du caaxaan lu la. gars yi kenn raw leen. Cheikhu Tidiane. Oh. tariqam bi am na ku ci dàq woy ñu ko wax beddu mooy Hassanu tariqa. Mm-hmm. yonent bi jamonoom ki dàqoon a woy Hassan la tudd. Mm-hmm. Hassan ibnu Saabit al Ansaari dund juróom-benn fukki at ci jaahiliya dund juróom ها كوكو مو دون حصاري مسابت الانصاري كو دون لا يونتي مولاي فايو يونتي نك بو جو مو روح القدس ماك ساغال يفير ياغي عندك جبريل جبريل لا نيو يو ديف سا دن ديلا يوكو مدد كو لا يونتي مو دف ان ابي ووالدتي وارضي لارض محمد بكم بقلب سما باي سما ياي اك سما بكان جيلنا كو ديفكو مو ديفانس يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم جوت محمدا واجبت انه وعند الله في ذاك الجزاء ساغا وينون تي واي ماكاي تونتو تي باي باغا تي يالا بيسبنتو حسان مو سي احمد تيجان بيم نيوي دا ام حسان حسان موي بيد بن سيدي موي حسان الطريقه فايد بي بيم نيوي دا ام حسان حسان الفايده موي شيخاني بي شيخاني مو ني فمراد الاله دي يالا نامو تي يو جامي تي يانكاي فراغ ني وقتو القوم بالقائم واخ جانغي ماجي comme ni kii wax wax ji ni mu màggee xam nga waxu yàlla daa rëy ndax yàlla daa rëy seexaane bi soo ko xamee mm-hmm. daay jeex mu ne fa muraadu illaahi yow li yàlla namm ci yow muy wax ak koo xam ne xamagul yàlla li yàlla namm ci yow salaatun bi dana na nga julli mm-hmm. waaw mu ne wa zakatun def na na nga joxe zakat mm-hmm. wa xajjatun def na na nga aji màkk wa def ne nanga nga na nga na woor wa yaqiinun bihi yàlla def ne na nga am yaqiin am certitude am yaqin bu mm-hmm. ixlaasu wajhin ak sellal mm-hmm. bi shuhudin anhul anaamu niyaamu nga sellal façon sellal boo xam ne mbindeef mi dañoo nga am shuhud janoog yàlla janoo loo xam ne mbindeef mi dañoo nelaw ci janoo boobu nit ki su yegg yàlla nit ñi ñëpp dañuy nelaw ci yegg moom moom moom moom rek mooy ak yàlla day <laughs> moom rek ak yàlla nga fay soo yegg yàlla yow rek ak yàlla uh-huh. dara du fa am malaaka du ko fekke yonent du ko fekke amul kuy koragaraat ba mën a yegg ba mën a fekkee ba nga yàlla ba yàlla mu yow rek yàlla sinon su fa leneen moo tax mu ne bi shuhudin ci seede goo xam ne anhun anaamu niyaam hmm. ñu ne ko waaw mu ne baabu zaakal muraadi minka jamian mu ne sa nammeel boobu yëpp julli gi hmm. joxe zakaat bi aj gi ak oor gi yëpp hmm. bunt bi mooy markazu sirri mooy ah. centralu sekk rek yàlla mooy Maulana Cheikh Ibrahim ramzu junju ram sirru googu mooy barxam léegi nag moom wax na ci baraam lu yaatu beneen bés danañ ko tàllal ndax moom wax na ba wa axaru fii xamsi juróomi xaraf yi ndax ramzu la wax ramzu barxaam la wax ramzu junj markazu sirri boobu mooy barxaam mu ne baabu kulli ulum bàyyi ñes mooy baabu kulli ulum mooy buntu mboolem xam-xam yi jaami bu maa min kullu maa min kullu sirrin waaw maa min kulli sirrin yadiqu anhul kalaam moo mooy ki dajale loo xam ne wax خط نكور وحكو من ذو المقام الذي تسامى إلى أن بلغ الغاية التي لا ترى ذو المقام ما يبرى المقام الذي كان خمسة تسامى يكتكون إلى أن بلغ الغاية بم يك دايو التي لا ترى من جوا خمسة كن مشكو ورتش غوريال بم يك مم بايت يال أمون كن تش غوريال يكو يجوا من لولو ما يكتي شيدن بكن من من تبايك آه، محمد بن الحسن بن أبراهيم خم خم نتيموريتان أمون كوي دون دموريتان يجي دايو xam-xamu Mouhamad ibnul Hasan ndax taalifam yu bëri maanaam ak njàngale ba léegi moo ngi jàngale màgget na ba léegi macha allah taalif yi ni mu bëree ni mu nekkee shaayir ni mu nekkee adib ni mu nekkee faqih suñuy lim borom xam-xam borom xam-xamu Mauritanie su nekkee ne juróom nga tànn moom dana bokk ci biir juróom Mouhamad ibnul Hasan taalibe Baay la nag moo ñuy wax kan mooy Baay ak fan mooy Baay من السرب إلى حيث الخلافة تطلق حيث المعارف فيدها يتدفق حيث البصائر أبصرت إذ أشرقت شمس بها يمحى الحجاب ويمحق إذ فيد آه، آه، إذ فيدة الختم التجاني صاطب برق بمزن خليلها يتعلق حيث الشريعة أخصبت رودا وأن زهر الحقيقة رودها يتفتق هذه مدينة شيخنا فاربع بها فالباب مفتوح بها لا يغلق الله أكبر وأمين أسرار لليلى استخبرا أن سر ليلى فالأمين مصدق متعلقا بالشيخ إبراهيم إذ نال المطالب من به يتألق فمعلق بالشيخ قلبا كم هوى رفعا بفعل القلب حيث يعلق سر بي لأرض مدينة الشيخ التي أعلام علم الشرع فيها تخفى <laughs> إيه، لمو يب من غير جل بين بيت دينا رامبلاسي ci إيه. من هذه مدينه ne hazi madinatu sheikhina يوبما سوما يوب غير يالا يوبما الى حيث الخلافه تطلق فما خمن خلافه بين كفا بويال دوتو تاخوات با بيس بنت ميال تي كوتي ام فما باي امي آه. يوب ما فوف من بوغما خلافه بو خمن دنجو تنكو بو فو جوغي رك كنين ديل لا يورون تي بوكول سي يوب amna khilafa yi xam so koy joge keneen di jël sa khilafa gi te bokkul ak yow dara du la sant du la gërëm yaa ngi dégg bi loolu khilafa boobu dañ koo tënk <laughs> xilaafa gi ñu jooyal mooy ku mosate xilaafa ci yow la ko mosate fu nekk daf lay sant ba ba dundam jeex mooy soo may yóbbu nag sir bi ilaa xaysul xilaafati tut la ko yàlla soo moo yóbbu si xilaafa yi jëngi yóbbu ma xaysul xilaafati tut la ko fañ jooyal xilaafa yi xam nga xilaafa bàyyi su nekkoon dañ kaa tënk mooy kon ginnaawam benn waay mooy ne cas yenu lam yenu woon yépp mm-hmm. mooy xilaafa buñ tënk waaye xilaafa buñ jooyal al xilaafatul mutlaqa soo ko xamee mooy xilaafa boo xam ne ba ko borom solee sol na ko dootul summeeku ba abadan te ku ciy sol moo la ciy jox te te mënu ko du ko joxandoo benn nit lépp ndax amul ci kaw suuf bopp bu ko mën a àttan amul benn bopp bu àttan li bàyyi yenu woon lépp waaw léegi naa bàyyi tuuti sax radiallahu anhu yàlla ko yàlla ay gërëm nee ne bàyyi la nekkoon ci bopp bee rëy diis ba dee sax nekk daan gis mu ne nii mu ne nii suñu jamono bi am na ñuy kaalawu seen kaala rek dëngal seen bopp di fekk dara nekk xam nga lam yeen woon moo diis parce que mooy xalifatullahi fi ardi géré juróom benn fukki mbindeef akob ah. bieta sarrafu fii si tiina aalama sa sant mbindeef adduna ak alaxira benn mbindeef la ci mbindeef ngay géré yooyu yëpp melentaan bu ciy dox xam na ko oh. ku wax dégg nga dégg ko te wax yi duñ jaxasoo amul benn wax buy jaxasoo meneen xam nga soo toogee war nga dëngal su bopp. waaye nag am nañu koy roy roy baax na trop. def kaala gu rëy rek dëngal su am na ku ma nekk ni ndeysaan ci waa Medina Baye la ñoom ñu ngi keroog Nigéria mu ne Baye toujours ndeysaan moom Lagos Lagos la doon sànni. Ah. Lagos la doon sànni oh. moom Kaolack daa tànn te Lagos la ko wéy. fajar noonu la doon tëddee jël Lagos bi teg ko ci kaw tànk yi oh. ndeysaan xëcc ko ko ci jëmm bi. Hmm. mu ne ñoom heure boobu su bër setee dañuy ñëw nuyu Baye. buntu néeg bi nee na dafa amoon ñaari buntu ngay nuyu laa ko kan la nga ko man la dina naa def nga jàll mu ne benn waaye ndeysaan toppatoo baax na lool fa tashabbahu in lam takunu mislahu bi yàlla fala ndeysaan mu xaddam la ku baax la def néegam bi ñaari buntu ndeysaan fa def su jotee mu xëcc Lagos ndeysaan ko ci kaw xale yi di ñëw di nuyu ku ne salaamaaleykum ah nga kan la jàllal la yaa ngi dégg bëggee la rek. ah ndeysaan bëggee la rek man gis naa ni mu bëggee bàyyi amul kenn ku bëggee noonu sëriñ pour nit rek bëgg sa sëriñ ba yegg ci d'ailleurs bëggee loolu moom soo ñëwee ci bàyyi foofu rek nga koy dana bëgg sëriñam nag mu yegg ba fu nekk waaye soo ko comparé xam nga rek su nekkee ne dangaa dangaa gisul yi fii yi yi si bàyyi ñas rek da nga yaakaar ne dafa xaw a nuroo wala dafa xaw a yem waaye su ba gaa yaa ngi wax ci bàyyi wax yoo xam ne كان مسؤول واخ لولو تي نيت كوس كان كان نيمو كو واخ نيت سان كان دوفول سان باكاي واخ داي ندي مودا مون سو مو يوب دال سير بي الى حيث الخلافه توت لو يوب ما فاني جوي لي خلافه فني جوي لي خلافه موي فان مون حيث المعارف فيدها يتدفق فما خم خم يالا فيد غامي جاندي بيسو دمي رك بلن نيو فوف امول تاهو تتبع الي ثمرات كل شيء رزقا من لدن حكيم عليم مدينه جي بو خول ني ني ديدت madina gi madina la mbiru baatin la est ce que dégg nga wax bàyyi ñes nee ne jarrat su yulaha alal xaway madina jël na cebberiiram watat ko ci mbooleem xaajira yi gis nga Moscou yaa ngi Moscou ca Russie New York ca États-Unis London ca Angleterre Paris ba ca France ñooy xawaadir yi gën a màgg ci àdduna waaye bàyyi ñes ne madina bi moo ngi watat cebberiiram jarrat su yulaha alal xaway ci kaw Moscou ak Paris ak London yaa ngi dégg ak New York kon xam nga su nekkee mbir bi da nga kaa jàppee mbiru zaahir nga ñëw di fekkee assainissement bi sax baaxul ah sax kii da nga su ne nekkite matière bi du loolu. Hmm. matière bi mbiru baatin. Hmm. passé na passé hmm. léegi nag su motee nag signification bi day ci zaahir nañ dem ba ci kanam est-ce que dégg nga wax léegi nag mu ne haasi madinatu cheikhina haasi bii nii madinatu cheikhina mooy mooy madina Mawlana Cheikh Ibrahim farba abiha sooy dëkk dëkkal foofu. moo tax ñi dégg bàyyi dégg dégg dégg ci naar yi ñi ci dégg bàyyi dégg dégg kenn ku nekk xam nga kër Medina dëgg la ñoom ñëpp moo tax mu ne haasi madinatu cheikhina farbaa biha dama dëkk fa mooy madina bàyyi fal baabu maftuhun biha laa yow buntu ba ca madina bàyyi tijji nañ ko te dootuñ ko tëj ba abadan toujours rek fay bi yaa ngi dox jëlee ko ci yàlla di babasti ko waaye nee ne lépp lu ñuy séddale fii ci réew mi ñun ñoo ci gën a tuuti la waaye bu ñu leen naqadi la yàlla di séddale ñun ñoo ci ëpp يلا لب لو ميسي دل جلي كتي باش نيو نيو تي أوبلا أم نانا جام أنا كوي تول غاي واخ سما يلا يلا ماي دين رو كل تياتر نيو نيو دين لين فرس نهدي رياتر أي جيس غاي نانتي بسال سلم بامي واخ نافع كي تغز وتو خندق والله كسرى سين كاسي سين سين بانكي يغا خامني خالص ياغي تيغ فوق danañ jël ba xaalis yooyu daal di ko financé ci yoon yoonu diine koweeg diine ba mu ko waxee naa fexe yi dañ doon reetaan ne ko yow yaa ngi ragal bay gas balaa sa noonu di dal sa kaw di la gañe ngay wax ay gis laa ñoom yëpp bàyyi tamit lam daan wax yëpp def nuroon a gént jamono jooju mm-hmm. waaye ñoo ngi dem rek sa tub bii la kam i yaabu maa kunte jaay ko yaatika bil axbaari man lam tuso bi mm-hmm. ñun taalibe yi nag Baye Niass radiyallaahu anhu def def ñoo promesse def ñoo dë mm-hmm. def ne dig naa leen dig naa leen mhm. ne fépp fu ngeen bëgg a yegg da ngeen fa yegg loolu la Baye ñu soxla mhm. ñun taalee Baye mhm. te yàlla ñu yàlla dafay taalee Baye Baye nee ne li ngeen bëgg da ngeen fa yegg waaye ci ay condition Baye juróom-ñaari condition bépp taalee Baye war na bàyyi xel ci condition yi ci condition yi Baye wax yaa ngi dégg Baye nee ne ci lettre bi du lettre bi ma bëgg a firi nag nee ne ci lettre bi إخواني وجيراني وخدامي وشبابي بعد السلام اعلموا بأني ضامن لكم أن تفوقوا أقرانكم في العلم والمعرفة والدرجة والغنى وسعادة الدارين بشروط منها ترك اللهو واللعب ترك اللهو واللعب مطلقا وقف أو آثار السالحين والعمل بما علمتم على قدر الطاقة والمحبة في الطريقة وأهلها واقتروا ما بينكم وبين أعدائكم وقفوا على ساق الجد في كل ما أمرتكم والسلام tawbatukum maqbula wa sa'yukum mashkur hmm. bàyyi nee sama xarit sama soppe yi sama dëkkandoo yi ñi may liggéeyam sama ndaw ñi ginnaaw ba leen nuyoo xam leen ne man warlul naa leen warlul naa leen yaa ngi dégg de ngeen jot lépp lu ngeen di sàkk euh, ngeen jot lépp lu ngeen di sàkk daaminu lakum an tafuku apraanak ba ngeen di raw seeni morom fil ilmi da ngeen raw seeni morom ci xam-xam والمعرفة دقين راو سيني مرم كي خميار والدرجة دقين راو سيني مرم كي درجة والغنى دقين راو سيني مرم كي كوم كوم وسعادة الدارين دقين راو سيني مرم كي تحيق أدنك الله وعينك بشروط كي أيسان منها بوكنا كي ترك اللهوي باي فوق باي الله اللهوي موي بانيخو بكر لهوي بانيخو بكر واللعب أكفو bàyyi leen bànneexu bakkan ak fo yàlla sàkku ñun pour ñuy fo wala ñu topp suñu bànneexu bakkan afa hasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaw mutlaqan bàyyi leen mutlaqan ci luñ joyal ak fo bu mën a doon ak bànneexu bakkan bu mën doon waxti faaw asaari saalihin ak topp jeexitalu ñu baax ni nañ jeexital ñu baax ni amal ak jëfee bi maa alimtum li ngeen xam maanaam nga jëfee li yàlla xamal ndax saaba yi ñu taxoon ñu texe ñoom lépp luñ jàng balaa ñëw beneen dars di ci teg dañuy jëfee loola ba pare yonent bi nee ne man amila bi ma alima warasahu llahu ilma ma lam ya'lam ku jëfee lam xam yàlla doon na loola xam-xam nga nga xamul woon ah ala qadri taaqati ci kem kem kàttan wal mahabbati ak bëgg fi tariqati wal mahabbati nga bëgg tariqa bu ahliha ak ñooñu tariqa waxta u ngeen dog maa bay nag maa bay na aada seen digganteeg noonu yi bu leen ko lijjati mm. lijjati def leen barrage def leen kiiraay seen digganteeg seen noonu mm. ndax dañ leen di soxlaloo walis yàlla mm. soo yittewoo sa mbirum noonu da ngay tardé loolu moo tax ñu ne li passé bu ko fàtte def lay tardé yaa li xewoon sa digganteeg sa noonu soo ko jëlee def sa kanam rek mu waxta u maa bay nag maa bay na aada waqifu ala saati jidd mu ne taxaw leen ci fi kulli ma amartukum ci lépp loo xam ne digal naa rek mm-hmm. mu ne wasalaam seen tuub nangu nañ ko seen jëf mashkur sant nañ ko maa mm-hmm. ngi dégg euh, bi lii rek doy na tas dëgg la lettre bi gàtt na loolu waaye lim mu bu dafa bëri mm-hmm. ñun nag dañoo bëgg a firi lettre boo xam ne euh, euh, bàyyi li mu ci wax daa bëri lool دابا كو بوغون في ديال سين زياره فار يالا ديف ما ما دوغول تي بنين ليتر ما غيسون بنين ليتر بو خامي سيول وون تي نيو بري خامني كو وون داخ ما نوش ما غيس تي بي فري وون ليتر بو بو بوغ ديمال تي زياره دي ديال زياره دي ديال خامنا صح بن بروم خام خام مقدم لا با مو نما ليتر بي نغا تي دي في نوش ما ديغ بن نيت تي كو سو فريكو ولا تودي كو صح mu ne ma te yow sax bi ma la xamee ba léegi mosoo ko ci nit ma ne ko dëgg la bokkoon ci lettre yi nga xam ne dama ko toxal jëlee ko ci Kararis Mawlana Abdoulaye mooy ci ci ci ci kaye wu Cheikh Abdoulaye Dia yu ngan bi yooyu nga xam ne benn kaye bu nekk man daanaka jege na sept kilo lettre boobu lam yéen ci mbóot moo ko ci yaakaar naa ci YouTube ci ziyaare jigéen waaye nag du boobu laa leen naroon firil man bii laa leen naroon firil mooy lettre yaakaar naa ñaar fukk ak ñetteel ci lettre jawaahiru warsaki lettre bi dañuy gaaw rek këf ci ndax yaakaar naa bi nekk nii mm-hmm. am nañ lu ëpp une heure mm-hmm. kon dañ ci tënk tuuti rek pour ñaanalante bàyyi wax na ci lettre bi lettre bi may nar a firi nii ci mbiru set mm-hmm. bàyyi wax na ci lettre bi ci mbiru julli Baye wax na ci lettre bi mbiru lekk lu lew Baye wax na ci lettre bi mbiru wasif Baye wax na ci lettre bi tukki jëm ci kaamilul asri ci ki mat ci jama Baye wax na ci lettre bi mu raatu xuquqi ixwaan mooy nga sàmm àqe mbokk yi boo jël ci yii rek conférence wasilatul rahim Baye wax na ci lettre bi jokk mbokk Baye wax na ci lettre bi alfiraaru min dunia daw aduna dellu ca yàlla Baye wax na ci lettre bi ak talaaq duru passé ak gravité bàyyi wax na ci lettre bi ak taxabubu ila awliya illah bëgg bëgg lu nitu yàlla yi bàyyi wax na ci lettre yi wax nga mokkal say wadi maanaam nga topp ndigalu waajur nga bëgg say waajur toppatoo leen xam ngeen mbir waajur ni ni yàlla insisté ci mbir waajur ci alquran ba sax aay bi gën a doy waar ci mbir waajur mooy wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyaahu wa bil waalidayni yàlla atte na ne bul jaamu ku dul ndax mooy sa borom moo la sàkk waaye wa bil waalidayni ihsaana xoolal rek ginnaw yalla tegu ci lu ñaari waay moo tax benn way eh, benn bes ñoo ngi nettali ne yonent yalla musa mo ne yalla suma duggé aljana ma kan ñoy nek wala ma kan ñoy dekk yalla ne ko ha ah, mu ne ko suma duggé aljana mo musa ma kan ñoy dekk lo la bëgg yalla ne ko waaw baax na demal ci marché mm-hmm. soo ci jot jotagul da nga gis benn waay boo xam ne day dagg ci yàpp ga muy jaay wol ko xaw ko wol ba moom lakk ko ba mu baax di génn su génnee topp waa ji ndeysaan Moussa ñëw di xool jaaykatu yàpp yi mu dem gis benn waaye jël yàpp bi di ko daggati dagg yu sew wol ko ba mokk jël ko lakk ko génn daal di ko def si muus génn di dox Moussa topp si ginnaaw koñ bu waa ji jàdd rek Moussa jàdd koñ mhm. koñ bi waa ji jàdd Moussa jàdd koñ waa ji dugg ci benn kër Moussa dugg ci kër gi nuyu ne salaamaaleykum man de doxandem naa dama bëggoon fu ma noppaliku waa ji ne Moussa togga mu toog waa ji ndekete mère baa nga fa mooy yaayam jege na jege na juróom-ñeent fukki at amatul bëñ te yàpp la bëgg moo tax mu walal ko yàpp ba mu baax macha allah lakkal ko ko ñëw di ko ko sexal mu lekk ba suur am luñ waxante ñoom ñaar am luñ déyante waxante muuram tiku waa ji daal di jóg Moussa daal di téye loxo bi ne ko bi mu ne ko man mu ne ko man du ma doxandee dama doon laaj yow lan nga wax ak maire bi mhm. yaay lan ngeen wax mu ne sama yaay bu ñuy baaxul te yàpp rek la bëgg mhm. moo tax man su ma jaayee yàpp ba heure bi dama koy walal yàpp bi lakkal ko ñëw indi jox ko léegi nag moom xam na ne damaa bëgg yonent yàlla Moussa waaye xam nga Moussa la wax sama yaay xam na ne damaa bëgg yonent yàlla Moussa su lekkee ba suur rek daf may woo ma ñëw mu ne ma yàlla la yàlla boole yonent yàlla Moussa ca àjjana loolu la may ñaanal loolu la may ñaanal Moussa ne ko ah mu ne ko wala mu ne ko maa ngi Moussa nag xamal ne maa ngi yow la ca àjjana loolu pour euh, màggal sa waajur bàyyi insisté na ci leetar bi ci birrul waalidayni

moom mooy maanaa lii génn ci zakaatu borom alal yi nga xam ne ay julli ci kaw suuf xam nga euh, quatre cent millions dollars euh, million laa wax milliard laa bëgg wax quatre cent milliards dollars quatre cent milliards dollars mooy lii génn ci alalu ñi nga xam ne dañoo war a génnee zakaat ci kaw suuf xoolal benn milliard dollars benn milliard dollars milliard dollars milliard CFA sax bëri na hmm. mais milliards dollars milliards dollars loolu waxuma la benn waxuma la cent mais quatre cent milliards dollars loolu suñ ko séddalee ci ñu pauvre ci xam àdduna bi day baax mm-hmm. euh, bàyyi wax na ci lettre bi euh, yu bëri yu bëri yu bëri mm-hmm. wax na tamit ziyaare bi nga xam ne ci moom lañ nekk nii moo taxoon ma jëloon lettre bi bëggoon jaar ci ziyaare bi ci ci li muy wax noonu ci ziyaare ci lu gàtt mm-hmm. باي باي نيني الشيخ احمد التجاني نيني قال الشيخ الختم التجاني مخاطبا جميع الاحباب ابشروا ان كل من كان في محبتنا الى ان مات عليها يبعث من الامين على اي حال كيف كو خامنا داك ما بوج باغا ген ادنا دنج لي dekkal تي ñi am confiance wóolu ci ñi dugg àjjana bés penc bi ala ay xaalatin kaan maalam yelbas kullatan amaani min makrillah fekk rek wóolu ba génn àdduna oh. فعليكم بتعزيم الاولياء ما قال الولياء اللي الاحياء يدن منهم والاموات اكيد فان آه. يعني ما قال الولياء اللي يدن اكيد لانه عباد الله المكرمون ناس يوم جامو يا اللي يلا ترى يا وياكم ما تلين بالاستخفاف باقدارهم واهانتهم ويفعل درجه الولياء اللي تكلين ترخى ذلك من اسباب الطرد في طريقتنا سبب يوي دي سبب اللي منا آه، داخلتي طريقه الولياء بالله بعد فعليكم بالسعي اليهم na ngeen dox jëm ci wali yàlla ba mu jaalasa ba mu jaalasatihim ngeen toog ak ñoom ba mu waasalaatihim ngeen jokkoo ak ñoom wa ziyaaratihim na ngeen ziyaare wali yàlla yi lillahi billahi fillah wa humul wasaayitu ndax wali yàlla yi ñooy waasita ñooy barzax ñooy pont baynallahi wa xalqihi diggante yàlla ak mbindéef wa ziyaaratuhum fi lxaqiqati mu waasaltum lin nabi soo ziyaaree sëriñ si dafa mel ni nga jokk nga yonent yàlla Muhammad wa tawassul bihim tawassulun bi rasulillah soo jokkoo sëriñ si dafa mel ni yaa ngi jokkoo ak yonent bi ndax bu leen fàtte yaa ngi dégg ne lii ibn arabil haatami maa xormatu cheikh illa xormatullahi fa qum biha adaban lillahi billahi bàyyi nee ne is kullu xayrin wa barakatin bépp yiw ak bépp barke qallat aw jallat moo xam barke bi dafa tuuti wala dafa rëy wala yiw bi daa tuuti wala dafa rëy minhu xasalat maanaam barke daa ngi jëlee ko tawassul ci suyux yi jokk ci sëriñ si wala ziyaare bi wa bi talatihi zaharat wala boobu موجي جوجي جم يوم تعلم موسى وبطلعته تكلم زهر الله يبيو يبفين وصائر الأولياء والعلماء والعلماء وصائر الأولياء والعلماء بالله بولم أولياء خم خمي من